asalaamaaleykum mbokk Leuz TV asalaamaaleykum delloo nañ buum ca mboy mboy ga ah, ñëwaat ci seen émission li may fësal bam ni fàng wax naa leen ko lu ne fàng kenn du ko jeex man mi maa koy fësal ba mu fës ak li may fësal nag tout est possible naa la mën nañ ñëw sax ñëwaat ndax roof yàqul jën bu jën ba nabul te fii ñu ñëw nii kii dafa ñor askan bi macha allah muy Serigne Cheikh Tidiane Niass sët ci maam Khalifa Niass ah leen la ca maam sët a koy jël sët bi xam ne daa doon maamam ci xam-xam faaw ñuy ñëwaat fi ndaxte bi dañoo ñëw bi am à suivre li mu war a wax daa bari da defal dem jéeg ji jéeg joo xam ni rek war na noo xam nan la ñuy sëyee nu ñuy def ba téye seeni i jëkkër nan la ñuy def ba seeni i sëy yàgg nan ma topp tey ñu waxtaan ci thème bu am solo muy émission jéeg ji tey jéeg ji laa laa jugal tey ak sëriñ Cheikh Tidiane Niass ndax moom ci lépp lay wax waaye dina wax ci actualité topp leen ma waaw kay comme gannaaw ba mu leen nuyoo wax leen ci ki ma ñëw defe naa jaratul présenté xam ngeen ko ndaxte ba mu fi jaaree yàggul donc nag dam koy jox kàddu gi rek balaa ñoo tardé ci dara mu nuyoo ba pare auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu mbooleem fu doomi Sénégambie nekk di leen nuyu nuyu lislaam nuyu aljana eh, di jéggalu it ci gëj gëj bi ndax eh, lépp rek njëriñu Sénégal moo ñu tax di jóg aussi tamit eh, ñu ngi ñaanal mbooleem koo xam ne ni yéen nga Sénégal jàmm yàlla yéen la jàmm defal la jàmm hmm. ay Aïcha mu ngi noonu dégg ngeen ni mu nuyoo nuyoo bu sell bi macha allah Aïcha ci li ñuy njëkk ñëw mooy actualité fi réew mi toll ku nekk xam na ni dëkk bi xat na dëkk bi poussière na dëkk bi bëri na coow coolu coolu lu ko waral oto yi grève oto yi grève borom kër yi war a xëy liggéey mu leer la ni am na ci ñoo xam ne amuñu seen oto bopp amuñu lu mën a yéeg pour seen bopp ci liñ mën a yéeg mooy ci kaar wala ci ci ci njaganjaay yi wala bu ñooñu grève ñooñu fan lañ jëm est-ce borom kër yi ñu ngi liggéey lan ciy wax sang bi fi réew mi toll nii waaw loolu du ma ci sori mooy li ma ciy wax rek mooy euh, toujours rek day wane ne ñi jiite réew mi yërëmuñ askan bi ndax koo xam ne avant muy grève lu mu gàtt gàtt 15 jours yëg nga ko avant muy grève kon waroon ngaa jël jox cër askan bi. parce que am na ñoo xam ne ci ci xëy ci la ñu amee dépasse bu ñu dundalee seen am na xam ne ci oto yi ñu gaare donte gaare nañ mais neexut leen ci la ñu dundalee seen njaboot extra extra. bañ naa ko ba tey damaa tekki sama rooru kilifa jóg 7 di am ñu ma doon jël di leen yóbbu pour ñu xëy ji. Euh, extra extra loo xam ne ni dafay metti parce que samay dëkkandoor yoo xam ne ni leer na ne bu ñu xëyiwut pour ñu añ wala ñu reer wala ñu ndekki c'est difficile weer dee na pour ñu fay location du mënu nekk dama yeewu 7 heures li ma yóbbu ci 20 et 20 fii ak Dakar ak fii ak Kër Massar ak nangam ak nangam kenn xamul nu toll ci sama oto dama obligé sama ñaari oto yëpp dama ko jox chauffeur bi ne ko ne ko na continuer mu yóbbu nit ñi ku mu romb ci mbedd mi war laa yóbbu mu yóbbu la loolu li ëpp importance rek mooy ñu respecter sénégalais yi ñi jiite réew mi nañ respecter sénégalais yi nañ yërëm sénégalais yi mënul tëj nit ki ci couvre-feu mu jógee ci coono yooyu noonu ñu ne deet ñu dugg ci coono élection ñu ne deet waaye ñu dugal dugal ñu ci coono transport kon nañ yërëm askan bi réew nag naxante yoru ko réew fayantoo yoru ko réew toppante yoru ko ki lay oo ci dialogue ci waxtaan lu mu yàgg-yàgg fa ngay mujjee fekk si ko ngeen yërëm askan bi askan bi sonn nañ ci ay détails yu ñàkk fayda yoo xam ne ne waroon naa mën a ñàkk kon nañ ñu yërëm ñu yërëm ñi nga xam ne ay père de famille lañ yërëm ñi nga xam ne ay mère de famille lañ parce que dañoo sonn ñaata ñaata jigéen ñoo yeewu fajar di dem duggi di dem marché ñii di jaayi jën ñii di nangam ñii di nangam ñaata pa ay père de famille ñooy jug pour ut lu ñu dépassé seen kër kon yooyu président de la république monsieur Macky Sall lañ koy lañ koy dagaan di ko wax ne ko amaana sax peut-être moo ñu gën a xam li ñu koy wax mais na gën a dolli respect sénégalais yi na gën a dolli yërmande sénégalais yi na gën a dolli aussi tamit mbooleem koo xam ne mu ngi sàkk la muy sàkku war naa mën a indi problème ci réew mi mu teel ko arrêté parce que transport loo xam ne la bu yàqoo wala bu amee benn problème bu benn fët boo xam ne benn jour boo xam ne xëyu ko rek li a yàq ci réew mi bari na ñaata malaat ñooy feebar war a faju ji war a dem hôpital kenn xamul nu mu kon nañu respecté sénégalais yi ci côté Aïcha mu ngi noonu yéen a ko déggandoo li mu wax macha allah ci grève bi nga xam ni oto yaa ngi koy grève euh, kan la ñaan njiitu réew mi moom lan wax ni que carrément na yërëm askan bi donc nag kilifa yu mel nii bu ñu waxee nit ñi dañ leen war a dégg te dañ koo nag war a jëfe ngi ñaan yàlla na kàddoom yi barkeel ba nga xam ne suba rek bi daal di donc nag fi may ñëw nag mooy ci wàllu bi nga xam ne jigéen ñi ñoo ma ko yóbbante ni nanu wax ci yàqu-yàqu néegu sëy yi ah li nga xam ne nii mooy indi gàllankoor ci biir néegu sëy yi ñu waxtaanee ko xool saafara gi sëñ bi boo ma doon wax ci gàllankoor yi ci néegu sëy waa thème bi da yaakaar naa kon waxtaan bi yëpp mën nañ koo tënk ci gàllankooru néegu sëy yi néegu sëy nag ñett ko waral rek ñett a ko ñett ko jonjoo bi ci jëkk mooy goro mooy goro nag ñaar la ki maye ak kiñ may ñëpp goro lañ kiy denc muy jëkkër ji ak ki ñuy denc muy jabar ji ñett ñi ñoo ñoo sëkk wàllum néegu sëy gannaaw bi ñu ko sëqee ñett ñi ba pare nag kenn ki bala caa dugg moom mooy responsable bu mag bi mooy jëkkër balaa dugg ci jabar war na koo seetlu seetantal démb ndax euh, daara dañoo bàyyi suñ suñu ànd te ko wàcc sa ànd and boo dem fekk fa borom bu njëkk bala nga daan takk soxna dañu daan dem demal sa doomu bàyyi diw wala sa doomu yaay diw nga xooli ko bañ wàccee loolu ñu indiwaat fi ne bala ngaa takk jabar nga dem xoolalil sa bopp mais boo gisee nga ñëw wax sa wayjur mu xool ko ko doy mu listi xaral ko maanaam xoolal ko ba xam tabian yi ànd na war wërsëg yi dëppoo na njaboot dana fa soqee ko yooyu yëpp amatul bañ jógee foofa it daanaka li ñuy wax maanaam wàllum euh, wàllum kersa jeex ci jeex ci réew mi ba nga xam ne nit bala nga koo muur muur boppam dem yooyu yëpp dafa jeex bu njëkk da daan takk soxna bu yegsee ñu jël dugub natt ci loxo yi boole koog mbiskit ak suukar ak ya ca aju natt ci loxo yi mu sotti loolu dafay tegtale ne fa ma jógee bu doon ay milliards laa yor tey ci yow mii ma jëm tekki na ne yoruma dara yaa yor sama lépp sama wërsëg ak sama lépp mi ngi say loxo netal la nga sotti nga sol dàll carax mi ngi tegtale ne maanaam boo yoroon ay milliards yit munoo jaay sa jëkkër lu ko saf kon dàll carax yooyu nga sol mooy wane ne da ngaa rafle ci kanamam waroo ko jaay affaire ñu muur la muur gi mooy danga lëndam lëndëm xamoo fa nga jëm ni sa ni sa ni nangam bi sëggee ni koy gars yi ni ko nit ñi waxee ni sa xawra ween wi sëggee noonu la ci noonu la sa xel mi sëggee maanaam tey kon yow bu ñu la muuree guddi indi la li muy tegte la guddi googu mooy dangaa war a am sutura ndax yàlla guddi sutura tax mu indil ñu ko kon yooyu yëpp nag dafa jeex ci société bi mu wàcc nag ci ki nga xam ne mooy góor ki ku góor ki it ñu la joxee yow miñ jox dangaa war a xam ki ñu la jox kan la dangaa war a xam ne aussi tamit joxuñ la or joxuñ la jamaa nit ak noppam lañ la jox moo gën or gën jamaa ndax wala xad karab naa bani aadama wa amal naa fil barri wal baxri la yàlla wax nee na lu ma bind doomu aadama laa ci gën a bëgg ñu jël ko mu jaay sant ndeyam ak baayam jël sa sant yow sa sant woo mën ta sant bu ko nit ñi bu ñëw dana ko bëgg sant ko am ak yow yi doom yoo xam ne noonu la ñu sant muy neex ak muy naqadi kër ndeyam ak kër baayam lekk naan lekk naan am na fa mu bëgg a ñëw ñëw xoolul sa bos neex na wala neexut kon nag yéen ñooñ bu ngeen dajee dafa am luy defar sëy bi li koy defar nag mu yëngu tas gi bëreeg yu mel noonu wax naa la maanaam cosaanu ki ki war a dugg ni mu war a comporté woo ak fa mu war a dem ak cosaan ba bañ ko bàyyee léegi nag ma ñëw ak yow ci jëkkër ji naka la war a mën a comporté wo pour téye jabaram pour nga xam ne kooku da koy da koy gënal ndeyam ak baayam daaro mag ñi dañ daan am ñeent jabar am ñuy am juróom-ñaari jabar maanaam mooy li wax wax takkoo mooy li ñuy wax asafur la li ñuy wax euh, taaral taaral teg ci yooyu yëpp nga am ko terewul aawo bi buy togg ñaar doomu ñaareel bi day ñëw di ko tànnale ceeb ñaareel bi ñoo di ko xambale matt ñetteel bi moo koy yekkal bu amul sens ñeenteel bi moo koy séddaleel ba ñeneen ñi taaral yi sax mën nañ koo tegal wala ñu laal ko yooyu nag mag ñi secret daan jëfandikoo du xaalis parce que tubaab bi ñoo ñu xaalis foofu waaye tey mënuñoo utiliser ñaari jabar wala ñetti jabar mënuñ ko parce que parce que secret bi mag ñi daan téye ñeenti jigéen ba juróomi jigéen loolu amuñ ko yàlla mayul leen ko ñun la ko yàlla may secret bi du xaalis bu bari du wax ju neex bi ci jiitu mooy nga daaj leen boole seeni xol li ñuy wax boole maanaam nopp seeni xol da ngay gis seet bu sëy sëy bu daan jël njël mag ñi jël am luñ bind war a fax naa makaana aliyan am luñ ko booleek jox ko def ko def ko ci ceeb suy ko ñoom ñëpp ñu bokk lekk wala ñu def ko ci res ñoom ñëpp ñu bokk lekk yi ndawal jooja su ko defee ñëpp seen xol yi day tàppe ànd nekk benn kenn du kenn du xiyoo kenn du ŋaayoo kër gi du am coow loolu nag yooyu yoon yooyu la tubaab yi ñu li gëmloo ñenn ñi ne leen li ay bidaa la ay nangam la ay ay ay gaspillage la maanaam yàq la et cetera et ba dem ba nga xam ne ñoom xamatuñ fi ñu teg seen tànk. léegi nag mu des ci wàllu néegu sëy boo amee loolu yëpp ba pare neexal sa kër ba pare say jabar mën nañoo ànd neexoo waaye est-ce que danañ neexoo ak yow yow mi leen fi indi mën nañoo nekk benn nga neexal leen ci wàllu boole ba pare du neexoo ak yow xam nga lu waral du neexoo yow. ñaar ba ñett moo koy waral bi ci jëkk mooy nekk gaynde nekk muus ci mbedd ma nekk gaynde ci sa kër mooy boo duggee ci sa kër doo leen may jàmm doo leen may salaam dangay ngay yuuxu da ngay dóor dangay saaga dépassé nañ jamono boobu bi ci bi ci des mooy euh, ñu rafetal aussi tamit nekkin te xam ne jabar nawle la bu ñëwee del consulter ak moom di waxtaan ak moom di partager ak moom loolu dafay dafay ñemeel jigéen troisième chose bi nag mooy néeg ba bu yooyu yëpp matee te néeg ba matul nag moom boobu mooy mooy mooy bi nga xam ne mooy yàq néegu sëy jamono ji lool yi ci ëpp nag yi day jógee ci jigéen ji yi jógee ci góor gi bu ci nekk dana la ci détaillé yi jógee ci pexe goro yi yi jógee ci pexe rab rab danay dugg nit ba nga xam ni yow doo am capacité wu maanaam mën a nekk ak sa jabar ci jàmm daaw bu sa jëkkër tukkee da nga koy nam am ak moom jàmm su ñëwee nga am ak moom doo bëgg lu dul xuloog moom xeex tongoo bu waxee benn nga ne ko fokk te doo après yow jigéen ki boo tëddee doo xam ne loo koy def loo su fekkee que ni maanaam loolu la dañ koy faj immédiatement traité ko mu wér parce que loolu yàq na néegu sëy yu bari beneen bi ci des muy wàllu kartan ngóora kooku góor gee ko moom bu sa néegu sëy dëgërut yoral ay milliards sa jabar dana la jox cër ci biti waaye du la jox cër ci biir pour mu jox la cër ci biir jox la ko ci biti loolu sa sa néegu sëy dafay dëgër këcc maanaam da ngay nekk góor à peu lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt sa première jëflante donte sa gudd da nga jëflante boo boo ayee ca kenn da nga jëflante ak moom ñaar wala benn mais à peu près sa première jëflante lu mu gàtt gàtt war naa mat 15 minutes 20 minutes góor laa wax nag sa première jëflante ak ak jigéen war naa mat 10 minutes jàpp quinze minutes boo feebaru dara jotu la su fekkee yi ma wax la nag dal na la dawal nga xool yi li nga xam ne mooy docteur ñu xoolal la mais docteur nag bu la xoolee mënu faj maanaam wàllu wàllu néew kàttan impuissance sexuelle docteur mënu ko faj ak bu mën a doon li ñu la mën a jox rek mooy garab yoo xam ne daf koy daf koy calmer soo soo amee tey suba boo ko naanatu doo jóg loolu nag li koy faj du lenn lu dul sëriñ waaye nag sëriñ bu mat sëriñ xam ñaar xam médecine traditionnelle maanaam wàllu sunguf ak reen ak composement nangam-nangam ba pare it xam wàllu lasraar mooy ilmu ilmu moo xam ilmu nujum la moo xam ne almu tabian la moo xam beneen almu la mais ne lasraar rek lu ñu boole teg la léegi yii nag bu mu ci dal daaro dañoo fexe ba dimbale société bi ci ñaar mooy comme néegu sëy yi mooy mooy bu neexee rek kër neex te bu kër neexee jàmm am ci peuple bi kooku ñu indil leen li nga xam ne mooy mooy mooy njëriñu askan bi mm, njëriñu askan nag ñaar la bu dee ku jigéen ki la la dal parce que da ngay def lu nekk daaro pour satisfaire sa jëkkër bu ñëwee di gën a xiiroog yow ngaayoog yow doo xam lu xew su demee ci àll ba nekk di sàmba alaar yor ay millions du mën a jox dara du ngeen mën a nekk ci jàmm du ngeen mën a jàmm fu ne nga dem fa mu gisoo résultat chaque jour yéen a am yéen am ay te boo sañoon toog ci sëy ba kooku it indil nañ la solution aussi tamit solution bu nekk nag danañ ko partager bu fekkee góor la impuissance sexuelle bu fekkee ci wàllu néegu sëy dafay dikkee ñetti anam bi ci jiitu wax naa la ko muy rab dañ koy fajee ci saar wuñ naan qul wax ya ilayya anna tamana faro minal jinni jinne googa jin euh, jin jinni googa dañuy bàmm satatan ga bu ñu àggee ba ci satatan nga juróom-ñaari yoon wala 70 fois boole ko juróom-ñaari xeeru dënn xeeru dënn mooy xeeru tiim yi ñuy tiimee ñu ko xamul am yeneen i mbir yu ñu ko boole jox la ko wax la nga jëfandikoo ko soo ko jëfandikoo rab bi day génn caw du la sonalati te danga nga mën a seeq ak sa soxna parce que rab ni muy def mooy da ngay sa soxna ba ci biir mu delloo awra bi wala sa xel du ci nekkati wala nga seeq moom ba ci biir maanaam da gis na tey da ngay da mën a diire 10 minutes suba nga mën a doo def sax 2 minutes 1 minute sa bopp yooyu rab daf koy def wa ilaa boo seey sa soxna ba pare sa soxna day jug saf saf tuur ndox dem tuuri ndox wa ilaa du jël ëmb wa ilaa bu jëlee ëmb mu tuur ëmb bu amee 2 mois jàpp 3 mois et cetera et cetera wa yooyu yëpp passé bu ëmbee ba am doom mu déformé doom ji mu mu mu yor yeneen yeneen yeneen genre mooy du mën a wax wa du mën a dox wa ilaa mu déformé kanam gi wa ilaa yeneen ak yeneen mu def kooku mu judduwaale noonu kooku rab daf koy def yii nag bu mu ci doon ñu njëkkee ci impuissance sexuelle ci wàllu góor wax nañ la wàllu rab nu muy def noonu bu ñëwee dañ koy faj ñun complètement ci alquran su fekkee daf la dëkkee noonu dafay am ay feebar yoo xam ne dafay dafay génn ci sa yaram bi lu ci mel ni maanaam wàllu jabet dafay tax nit ki day day manqué kattan parfois lu ci mel ni hémorroïde dafay tax nit ki manqué kattan ci mel ni extra extra dafay tax nit nit ki manqué kattan bu fekkee côté boobu la jabet fex nañ ba ba defal ko traitement boppam boo xam ne nii amul amul benn suukar boo xam ne nii dana yee feebar boobu noonu mooy bii nii xam ne dañoo amee jabet ñi nga xam ne dañoo amee jabet ñoom moom bu weex bii nii bii bu ñu koy jëfandikoo yi traitement bi une semaine la une semaine bi billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa da yow yaay waxal sa bopp mais du man maa lay waxaat te mbooleem loo xam ne naqadi woon na la sa kër na la neex sa kër mooy bii nii bu fekkee nag koo xam ne ni maanaam yooyu ma wax la feebar yooyu dara jotu ko ci maanaam xale bu góor la parce que tey impuissance sexuelle moom aajowul ci xale bu góor ak nangam parce que jamono bi dafa yàqu la xale bu góor daan def bu njëkk defatu ko da nga daan gis xale bu góor bu daan taxaw fii tuur ndox mu yegg fale léegi loolu mënatu ko extra extra balaa jëfandikoo jigéen wala soxnaam il faut nangam nangam du feebar yu bari yi nag ak lekk ko bon gi moo ko waral kooku nag bi traitement bi moom moom boobu mooy koo xam ne dara jotu la xale bu góor nga yaa am diggante vingt ans diggante euh, un an mooy benn at ba jàpp trente ans maanaam jàpp suuf kooku yaa moom lii nii moom bii nii traitement bi moom tamit une semaine la moom tamit boo ko jëlee yaay waxal sa bopp me du man maa lay wax euh, bu fekkee nag koo xam ne la maanaam nekkul ci réew mi parce que dafa am parce que kin maam tey ndox du dugg avion loolu nag ñuy voyage ñu yàgg voyage ñoo ko xam maam poudre bi lañ mooy mooy bii nii gis nga ko poudre bi mooy bii maam tey bii nii moom la ñuy moom lañ lay moom lañ lay jox bu àggee ñu wax la maanaam temps de dose nuñ koy utiliser ak yu mel noonu bu fekkee bii la nag bii mooy bii nii moo tax ñu def ci bu xonk bii nii mooy mooy bii nii moom tamit comme même chose ci loolu lay dox mais bii nag dafa sunguf bii dafa ëpp doole bii nii parce que bii nii dañ ci raxaale koo xam ne maanaam man yoom baaxul maanaam tey am na koo xam ne nii amul impuissance sexuelle mais mi ngi sëy mi ngi sëy 10 ans ou 15 ans mënul am doom bu jigéen ki demee xoll ji ñu ne ko mën nga mën ngaa am doom bu te góor ki faju juwut kooku moom ki lañ koy jox dafay defar ndoxum man nii ba nga xam ne yow booy yëg sa bopp dana la leer na li yaa ngi ko ci jamonoy xale bu góor mooy mooy bii nii te en même temps bii dañ ci rax loo xam ne dafay dëgëral xawara bi te aussi tamit ci biir dëgëral bi maanaam du la du du du du du nekk loo xam ne ni luy luy luy luy ñëw tey la bàyyi bu traitement sept jours yi ma tey luy continuer la toujours heure boo yegee sa bopp dafay dëgëral awra bi mooy bii nii si euh, biir loolu yëpp nag mu am koo xam ni dafa maanaam yooyu ma wax yëpp dalu ko mais xawraam dafa ndaw maanaam tolul kem ni mu ko bëggee wala mënul satisfaire jigéen wala yu mel noonu dafa am pour centimètre yoo xam ne nii bu fekkee sa awra àggu fa pour nga jot jigéen ki pour bànneexam mën a génn moom tamit comme ni sa bànneex di génne dafay dafay dafay difficile li may wax nii yëpp nag borom xam-xam yoo ko jàngale ñu jàng ko ci ci ay ci ay téere yu uute waaw jàng ko ci voilà comme boo demee ci téere yi ni ñu jàngaree amrul xaysi nangam nangam nangam nangam loolu ñu jàng ñoo ko xam loolu nag dañ ko dañ koo fexe ba créer ko loo xam ne maanaam ñu ngi ko ñu ngi ko composé ci gereesu gëlëm parce que animaux yëpp mooy rab yëpp gëlëm bokk na ci rab yi dàq sëy mën a gën a mën a yàgg gën a gën a gën a jotle xawra gën a jotle jëmm aussi tamit yaramam gën a gën a gën a jot noonu la ko yàlla bindee euh, ci biir loolu nag ñu ñu composé ko li mu ànd ak li nga xam ne mooy ay aaya alquran yoo xam ne euh, dafay dafay dafay dafay dafay dëggal waxu yàlla mooy li lu ñuul lii ngay gis alquran juñ kaasee ci suuf la boole ko geresu gëlëm ak karité ak ay mbir yoo xam ne yu uutee la ak reenu ñaam bi ak ay mbir moom lañ composé nii kii boo koy boo koy diw sa xawra bi dafay def xawra bi dafay dafay dafay développé dafay dafay am kem ni ko bëggee kii aussi tamit ci yéene lay dox ndax jëf yëpp innamal amalu binniyaatin yaa yéene kem na nga bëgg mu kii rek nga jëfandikoo ko noonu boo jëlee trois points yi incha allah yow yaay waxal sa bopp mais du man maa lay waxaat parce que loolu loolu mooy loolu mooy li nga xam ne góor tënk na ko mu ñëw mu des ci jigéen jigéen ki nag bu fekkee ne maanaam ci wàllu jëkkëram côté bu ne mu ngi koy ut pour satisfaire jëkkëram mënu ko am aussi tamit comprendre lu xew yëgul lu xew fu ne mu ngi fay nooblu mu ngi am li mu bëgg kooku dafay ñëw ñu euh, li cuuraay bi nga xam ne la waxoon naa ko fi sama yoon bi ñu bëri di ma ko laajaat parce que dafa bëri ñoo xam ne ñu ngi bitim réew du ma jëflante ak ñoom ci ma nga utiliser ko même pas une semaine yow yaay ol bopp yaa may ol bopp waaye du man maa lay waxaat ne la lii la tey cuuraay bi nii moom ngay dégg parfois am na ay mm, jigéen yu wax ne ah man de sama alaaji bi fii laa ko fas lu ma ko wax mu mu def wala yu mel noonu kooku secret al secret nopp bi muy ànd moom lañ moom lañ tënk cuuraay bi ñu utiliser ko ci alxuraan aaya boobu 16 16 jours yoo xam ne dañ ko cee xooj génn ko weer ko ci ker ba ñu la koy jox wax lañ leen nii la nii lañ koy utiliser kii dafay ànd ak maxaba gi nga xam ne nii maanaam Zuleyxa bëggee woon na ko Yuusuf yonte yàlla Yuusuf noonu lay àndee sa jëkkër pour mu bëggee la noonu moom tamit wala nu ko raw bu buñ jëflantee dañ lay jox ne la suuloo ko bala ngaa jëflanteek moom ci sa kanam waxuñ na kanam gi nit ñi gis dañuy rafetal kanam boobu nag boo ko suuloo balaa ëdëru saxaar si génn nga fexe jëflanteek sa jëkkër billaahi si laa ilaaha illaa loo ko laaj mu jox la loo ko wax mu def billaahi wal kitaabi mooy kii nii dara gënu ko efficace ci boole sa jëkkër pour mu toog palaasam pour mu teg la sa place parce que loolu dara nekku ci mm-hmm. jigéen nga def loo xam ne sa jëkkër daf lay jox li bon rek mooy nga lor ko loo xam ne boo ko ko laajee du ko am da koy uti ko da koy uti du ko mën a am wa ilaa loo maam dem ba tàqale koo ko tàqale koo ko ay mbokkam mënuta wax ak yaayam mënuta wax benn mbokkam wa ilaa et cetera et cetera loolu waaye loo xam ne maanaam da ngeen di bëggante mu yokk seen bëggante yéen ñaar loolu dara nekku ci lislaam daganal na ko ndax euh, yonti yàlla Muhammad soxnaam moo njëkk jël sàngara nal ko jox baayam mu naan ko ngir yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën a mën koo takk comme comme soxna yoon bi salaa salaam moo njëkk a def loolu ngir ngir góor kon lépp loo def ngir jot sa jëkkër ngir jot bànnee xam ngir ngeen nekk ci jàmm dara nekku ci lislaam daganal na ko léegi nag gannaaw yi yëpp bi ñu ko tënkee ba pare nag fi may fi may fi may fi may wax ci loolu muy wàllu émorite émorite dafay sonal nit ki ba nga xam ne nii dafa am interne ak externe maanaam mooy bi génn ak bi feeñ daaro gis nga émorite mbooleem bari na ñuy xam ne dañuy dañuy am wàllu wàllu wàllum sëy voilà nga daaru émorite mooy loo xam ne ñu ngi koy sàgganee aussi tamit moom tamit mu yàq wàllum ngóora parce que hémorroïde dafa am interne ak externe maanaam mooy bi nëbbu ak bi feeñ bu dee bi feeñ la kooku maanaam dafay bañ sëy bu bari dafay bañ lekk ndawal dafay bañ extra extra muy muy ndawal wata boor maanaam bu bu bu tàng bi bu bees bi extra extra yooyu nag muy bañ moom la xale bu góor gën a bëgg te boo ko jëfandikoo yi da aussi tamit dafay bañ sëy bu bari yooyu boo ko jëfandikoo yi nag dafay génn affaire bi ci ci biti génn bi mu koy génn dafay mel ni comme genre bul booy dem wanag muy métti ak yu mel noonu et cetera mu nekk ci biir du jooyloo biir bi muy def xor doo mën a doo xiif maam da ngay xiif kon te doo mën a lekk boo lekkee tuuti dafay mel ni da ngaa suur te sa biir dafa lay leer ne yow da nga xiif extra extra ngay extra maam ngay ngay xalaat lu bari sa fit di tëf tëf yooyu yëpp daf koy def moom tamit parce que dafay jàpp circonstance maanaam kii butit bi nga xam ne nii mooy jox mooy jox xol bi central bi bi bi tax xol bi di battre normal kooku bu fekkee ne dañ koy traité dañ koy traité ci diiru une semaine dootoo ko gis sa à vie kooku moom tamit dañ ko utal pot boo xam ne moo nekk nii mooy wàllum ndoxum siti wàllum hémorroïde wàllum colis mooy kii nii kii traitement am une semaine la dootoo gisati yooyu yëpp même kuy fóot wala yu mel noonu sa loxo yi di xub di def yu mel noonu sa yaram bi di génn ay picc di am ay tache ak yu mel noonu doo xam lu xew ngay jël ay produit di ko diwoo di nangam toujours mu lay gën a yokku du dara lu dul ndoxam siti rek moo la sonal wa ilaa am na koo xam ne hémorroïde moo ko sonal hémorroïde nag day ni muy def góor looloo ci gën a daw day dem ba tée ba ba tëleloo ko du mënati dara jugal sax du ko mënati kooku na ko teel traité mooy bii nii gannaaw bi ma la waxee hémorroïde ba pare nag ma indil la li nga xam ne mooy wàllu wërsëg ma tëjee ko foofu parce que temps moo ñu ko mayut te yow tamit amoo jot wàllu wërsëg nag ci la ñuy ñëwaat wàllu wërsëg nag ñu ngi ciy def loo xam ne lu yéeme la daaro waxuñ ko mais àddunaa ko wax nee naa la man Khalifa Niass mooy sama maam moo jur Sidi Lamine Niass jur Ahmed xalifa Niass xool leen ñoom ñaar ñuñ ba xam ay nitu wërsëg lañ am di nitu wërsëg ba pare nga soog di ñëw ci man mi wax ak yéen muy maamu oustaz Aadi Niass mi nga xam ne bu dee xam-xam la li ma la wax ni yëpp war na laa mën a convaincre ci xam-xam Aadi rakk la ci sama wayjur moo topp ci sama bokk na ci ñu topp ci sama pap toppul ma jël ma yóbbu ma ma jàngi ci réew yu uutee ñëw war a mën a faj soxlaay jàmm ñi kon man su ma ne la su ma ne la damaa war a ñaan rek danga war a teel a xam ne damaa war a ñaan ndax bokkuma ak ñi nga xam ne dañoo ñëw wàll yaan ci yëf yi waaye dama cey juddu man judd ci ku judd ci tàgg nag bu naawul jaaxali mbokkam ñu wërsëg awma ci kem ci ñi ma gis ñiy wax ci wàllu mën naa taal nit mën naa nangam ndaw muuma nag ndax yàlla moo ne la in zakartum la azidannakum su ma leen defalee xéewal na ngeen ma ko santee même yow sax soo ma mayoon dara waxuma la jërëjëf bu subaa doo ma may faaw ma ne la jërëjëf kontaan naa ci nangam nangam remercier la bu subaa bu ma ñëwee nga war nga xam ne man mi gor la même soo ma mayoon yëre it su ma ko solo du la neex yàlla it noonu la mel su la mayee teraanga wane ko ba ñëpp gis la gis ko waaye nag bul ci jaay affaire ñoo xam ne warul ñu ci jaay affaire loolu la ciy wàllum jaaro bi muy secret Léona Niassène bi ñëpp siiwee ci mbooleem kilifa yoo gis Léona Niassène ñu leen di ooyee kilifa laa wax nag ñu ngi takk jaaro jaaro Léona Niassène bi jaaro bi dafay ànd ñett ñetti cangat muy cangatu protection kaaraange nga xam kenn du mën ceew dara kaaraange gi ñu lay jox garantie bi durant cinquante ans la ku tibb sa tànk ba la neexee saaka ko mënu ceew dara ku la tëkku nee ko nee ko doo fanaan mënu ceew dara bu jimee ceew dee et cetera dañ la defal ñett fanu cangat yoo xam ne cangatu bayra la muy muy mahabba parce que nit ba lañ laa jox ki lay jox da lay bëgg nga am maxabba am cofeel et maam foo génn duñ ne kii kan la waaye àdduna bi yëpp ñooy xam ne ñoo xam ne kii kan la te foo waxee it sa wax dafay saf nit ñi nañ ko seet ci ñi may déglu ni may mel ci ñoom rek bala ngaa jëflanteeg man euh, bi ci des mooy wàllum wërsëg boo ko takkee da ngay dem ba da ngay yaakaar ne ay jinne ñoo lay indil maanaam li ñuy wax maanaam li ñuy li ñuy wax tabdil dangay dem ba dangay yaakaar ne yow ay jinne ñoo lay indil fekk oo ko du ay jinne waaye jaar bi dafay rax ay tuuri jinne nag yoo xam ne nii jinne yooyu ñoo soutenir woon ummu Moussa muy yaay yonti yàlla Moussa ndax yonti yàlla Moussa moom rek moo amee woon noonu wërsëg ci àdduna bi jur doom ba di nàmpal doom ji buur bi di ko fay loolu moom rek moo ko amoon ñu ne bu turam turam yooyu nag benn tur moo ci génn boo xam ne borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne turam bii mooy tur dëgg mooy yaa soxabidu soxabidu googu lañ ne boo ko bindee lim def ko ci njaq lu bees am loo ko booleeg sangoo ko kenn mënu laa tere am wërsëg ci kaw suuf ak kum mën a doon nag mënu laa tere am wërsëg kenn mënu laa am tere am turit ci kaw suuf waaye it kenn laa fexel ci kaw suuf ndax noonu la yàlla fegee woon yaay yonent yàlla Moussa muy lan muy muy samarusin mayrusin xayrusin tadrusin ba ba juróom-ñaari turi jeex maa ko leb ma ma tënk ko parce que gars yi dañuy dañu pirate juróom-ñaari turi jinne yooyu nag moom la ñu jël boole ko juróom-ñaari turu jinne yi njëkk a tuub ci diine lislaam munsirun nasirun sarafin wa amirun ibnu jaabir wa masirun wa shaabiun mu juróom-ñaari tur yooyu noonu sëñ Tuubaa indi na ko ci téeram yi boo demee da ngeen ko fa fekk juróom-ñaari tur yooyu nag moom la ñu booleeg lii nii jox la ko muy càngatu wërsëg boo xam ne da dem ba da ngay yaakaar ne ay jinne ñoo lay indil bu fekkee nag ne da nga umu foofu laay tëjee ci côté boobu bu fekkee danga nga umu umu mooy laal du sotti lu ñëw ci loxo bi day tasaaroo maanaam wërsëg bi dafay mel ne dafa dafa bënn loo dajale loo investir pour pour def ko dara mu tasaaroo doo xam lu xew ngoro goo song ñu dàq la ci ubu la bokk place boo song ñu rejeté la te sa jàng sa jàng mat na sa lépp matee na ko aussi tamit moo xam kuy kuy kuy théâtre la wala kuy wala kuy wala kuy musique ak yu mel noonu daf lay leer ne mën nga li nga li ngay li ngay def man nga ko ñi ci nekk nii actuellement ñu xam leen dàquñ la ko waaye qu'est-ce qui se passe luy sa problème yow ba tax mënoo génn loolu aussi tamit ci umu la ci mooy li ñu wax tëju olof moo indi baatu umu mooy tëju euh, ci biir loolu yëpp nag bu ñu amee dañoo dañoo composé saabu boo xam ne dañ koo dañ koo liggéey ci innaa fatahna laka fathan mubiinan fathan googu mooy ubbeeku ubbeeku yi moom la yàlla ci alxuraan ci biir loolu nag ñu ñu ñu ñu rax ci ay turu yàlla yoo xam ne ni euh, tur bokk na ci turu yàlla yu ëpp doole ci turu yi parce que 99 turu yàlla moo am biir 99 yooyu noonu maanaam am na benn tur buñ ci génne tur boobu ñu génne ci nag di ko nëbbu ñëpp ba bu set nga wax ko te ban tur la parce que borom xam xam-xam la koy nëbbu rek muy laa ilaaha illaa Muhammad rasulullah téeméeri tur yi ñëpp laa illaa Muhammad rasulullah amu ci aadama bi mu tooñee yàlla ne ko bu lekk garab gi mu lekk garab gi aussi tamit ci tur woowu la ko jéggaloo mu baal ko tur woowu it la borom xam-xam rawee ñëpp tur woowu nag lañ xool ismu mahmud gam xottee ko ñu xool fañ ko bind fañ ko bind ci diggante aras sa kursi yu ñu jël tur woowu duñ ko wax ne duñ ko duñ ko kiyal kaase ko saabu bi muy saabu def gis maanaam saabu bi nag nit du ko sangoo juróom-ñaari fan te ubbeekuul ci boppam ba bëri na kilifa yu nekk ci réew mi dañuy yebal seeni safoor ñu leen koy jox ñu koy jëfandikoo heure bu jeexee duñ ko joxandoor nit ñaari yoon it benn yoon lañ ko koy jox weer wu ne it wala ñaari weer yu ne benn yoon nga am droit ñu jox la ko boo yoroon ay milliards boo ñëwee duñ la ko jox lii moo nekkoon xam-xam boo xam ne indi nañ leen ko tey tënk lool ci régime ndax jot amut comme niñ ko waxee euh, ñi ngi sant mbooleem ñoo xam ne ñi ngi safoo di seetaan Leuz TV ak mbooleem ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi safoo di déglu Serigne Cheikh Tidiane Niass waaye ak émission bi nga xam ne mooy euh, li may fësal waaw kon tey nag yaakaar naa ku ku bëggul ku bëggul a dégg lu fës rek ci yow la waaye fësal nañ lépp loo xam ne nii mm. njëriñu askan bi la ci wàllu actualité ci wàllu xam-xam bi nga xam ne yàlla may nañu ko ci alxuraan ci wàllu taal doomu aadama ba mu nekk millionnaire léegi rawatina yeneen xam-xam yoo xam ne tudduñ leen fii moo xam ku nekk bitim réew la bëgg kayit moo xam feebar boo mën a am ba ci gumba goo xam ne nii maanaam nekkul katarak moo la ko def mooy li ñuy wax yenn feebar yi ak nangam yooyu dañ koy saafara dañuy saafara koo xam ne tànkam ay rab a ko téye et cetera parce que rab moom bëggatuñ cee wax ndax dañ cee prouvé ba nga xam ne ni bëggatuñ cee détail danañ am émission yoo xam ne rab rek lañ koy jagleel wax wane wan wan nit ñi ni muy manifesté woo ni muy duggee ci nit ana lan mooy rab ba buñ bëggee sax ñu wan leen ko loolu ñoom ñooy choisir rek waaye nag bu dee da ngaa gàtt xam-xam bu la neex danaan taxaw ne foofu laay tëjee ne wan ma rab wan ma nangam nangam ma ne la Serigne Touba kenn dëppoo kenn wérantuwut kenn gën ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que dafa ñëw tuddee ana ana rasul man maay mindaanu yonent bi maam xalifa ñëw ne man maay ki nga xam ne maay jaayanteeg yonent bi Baay Ñas noonu alaaji Malik noonu keneen ak keneen noonu waaye ndax ñooñu mas nañoo taxaw ne yonent baa ngi nii di wan la ko mas ñoo taxaw wan la ko dañ la koy bind rek melal melalal la ko waaye terewut na ñoom ñu ngi koy gis noonu la noonu la jënd mel ak rab kon li muy yàqal nit bari na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne mbooleem koo xam ne aajoom narta faju yàlla bu mu ma seetaan yàlla bu mu jëflanteeg man ndax mosumaa jëflanteeg nit mu ne ma li nga ma ñaanaloon gisuma ko wala sama aajo fajuwul mosumaa jëflanteeg nit it te yàlla dogalut mu am ci mu am ci comme ni mu ko bëggee loolu nag man maay def heure bu ma jógee 3 heures du matin di ñaan yàlla ne ko ku aajoom narta faju yàlla bu mu ñëw ci man ku sa aajo nar nara faju it boo yoroon dërëm yàlla nga ubbi Leuz TV jàkkaarloog man ñëw ñu jëflante sa aajo faju waaye maanaam li wax wàllu ñaan yàlla moom kooku moom amu amuñ ci kem faj soxla it amuñ ci kem ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp àq di wax ne mbooleem koo xam ne wax nañ ci loo xam ne lu la lu la gaañ la wala lu la tuuse la ñu ngi ciy jéggalu di di wax ne jàmm moo matul rek yàlla rek mooy ki mat kon comme yàlla moo mat nag ñi ngi tawasul ci moom mi mat di yéene Sénégal yëpp jàmm di sàkku ci ñoom it jàmm di ñaanal it sama président Ousmane Sonko yàlla defal ko jàmm jërë ngeen jëf. ayca mu ngi noonu yéen ko déggandoo defe naa ni xam-xam feeñaan na fi macha allah waaye defe naa ni wax ji leer na naññi te lu ne faa kenn du ko jeex sëriñ bi moom moo koy fësal man sax léegi waaye nee naa ko moom jox naa ko fësal ndax li muy wax day leer naññi te boo ko jëfandikoo di gis résultat ndaxte nag ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn ñi jëflanteeg moom xam nan moom mooy kan mais mënut a ñàkk mu leen ay adresse am daal leen yi numéro téléphone yi mu ngi ci baar bi mais moom noom da leen koy fàttalil boppam ay ca sang bi lan lay ci loolu joxe say adresse waaw maa ngi géejawaay amoo 4 mars Mame Diarra en face kër sëñ Mountakha Bachirou Euh, bu fekkee Kaolack la ma fekk nag maa ngi lew nañu seen enfance kër xalifa bi moom tamit parce que nee naa la toujours damay dàkk fi kilifa yi nekk rek ma jëm faa dëkkee ji nga xam ne bu boobaa njuuj ndaaj du ci am ak wax joo xam ne nii wax ju kenn mënta dindi la ndax kuy dëkk ak ay kilifa rek kilifa yi bu yàggee danañ xam yow yaay kan loolu moo tax numéro yi moo nekk noonu ci bande bi képp ku ñu oo neexu ñoo jot waaye boo ñu jotee rek sa aju dana faju ku ñu ku ñu ku ñu ko ko ku ñu oo jotooñu rek jàppal na sa aajo naragut a faju waaye heure boo jotee sa aju faju wasalaamaaleykum warahmatullahi wa barakatuh ay ci yéen ko déggandoo ku nu woo jotoo ñu rek sa aajo na tafaju kon yàlla ngeen ko woo daal di tombeek daal di koy jot ndax des fois mu am jot nag daal di jël clients yi jàppale leen parce que daf fee toogal nag yéen yéen dong yéen a tax mu toog fi jàppale askan bi ndax nee naa leen ñu ni ay missionnaire lan dañ ñëw ci askan bi pour jàppale leen dindi seen i njàqare faj seen ajo aajo cant ak ngërëm ñeel na la waaye ñeel na ñi nga xam ne ñu ngeen ñu doon seetaan ñuy kontaan ci yéen bu baax di leen wax nii lay demee saa su ak daaro moom comme gannaaw ba ngeen xamee ne da ngeen maa jox cër ba pare daal di may bëgg safoo ma faale ma mënuma ma xam lu baax ma indil leen ko ngeen jariñoo ko di leen cant di leen gërëm di gërëm sama fans yëpp di leen wax ngeen ñëw maa leen ñemeloo te ku ñeme dañ laa dee fii la fii rek la bu ngeen ñëwee xam ni pomme du new mu ngi noonu ba beneen yoon ci beneen émission li may fësal merci beaucoup Baye Samba waaye merci beaucoup euh, Cheikh euh, mi nga xam ni dégg ma naan nee naa Cheikh ndax dama koo bëgg lool jibi di gërëm jibi mi nga xam ne tey moo yoroon cadre bi ah Baye Samba émission bi di nuyu bànn euh, ci montage bi di la na montage bi gën a jaar yoon bànn bànn yi kilifa gi moom tag tag ko dégg nga bul bàyyi benn détail wóolu naa la merci beaucoup gërëm naa leen di leen wax ni beneen yoon ci beneen émission li may fësal